suñu xale suñu xarit suñu soppe El Hadj Mansour Mbaye ah combat bu am solo ñu koy ñaanal de passage yàlla guddal fanam yàlla na ko wéram ah Soro Malick gudd fanam am na njëriñ yaar bu baax a baax papa tout le xale yi waaye papa tout le monde voilà ngi léegi dañuy xool Balla Gaye Balla Gaye mi ngi France ah mais ñu xool ko mu wax ci combat bi ak waajtaayam ñu dellu si waat merci la culture africaine. Tu es sûr de ce que tu dis, toi hein One more time. défendre le pays des Camerounais ou bien français Cameroun, c'est nul. Aïe, aïe, aïe. a l'air d'être léger ça pour lui. moi les lions, toujours passion. jërëjëf yaakaar naa ni Moustapha loolu mooy ballagay bi nga xamante ni mi ngi en France di entraîner di wàccal combat ak Bombardier li ñu ko defee ak Balla Gaye dinañ ko def ak euh, Bombardier mhm. ah lin lin ci gis rek mooy yaakaar naa ni physique bi am na soppi coppite gu ci am te gis na ni ca dëgg-dëgg am na taxawaay boo xamante ne ni yu bari gëj nañ ko gis ci ci la gis naa ni man dama koo mën a tooñ biir bi lu ci bari wàcc <laughs> wàññeeku na. macha allah ah. ok ah. ah noonu la xaaj ba kaay. Ah. au niveau la daal. au niveau la fii la fii mooy institut bi gën a mag ci àddina bi pour tàggatu. boobu hmm. foog ñu xam nga amul kenn du ko contesté doo ko gis Amérique doo ko gis fenn dans ci ci àddina bi lu INSEP de Paris ñu dañ faa jaar doon tout tànk am ay vingt ans. tàggatu fa. bañ fa ñëwee itam chaque fois mu day gën a yokk léegi bañ nañ ba léegi nekkatul centre foo xamante ne ay français lañ fay tëj déedéet boo amee sa koppar ñëw fay par jour fay ay coach dañ la fay tëj entraîné la fa comme un hôtel. léegi sax tuddatul ay INSEP ay hôtel lañ ko tuddee lieu d'hébergement la léegi. Ah. tey jii yow Bécaye bu la neexoon nga bëgg mat cent kilos léegi. Ah. ñu boole ay professionnel nga dugg fa. mu ah lay tàggat nga fay ndékki àgg fa doo fa jógewaat ba jëlaat sa oto wàccaat aéroport jël sa avion. yaakaar naa ne ah. fii niveau la au niveau la. jaar nañ fa nag Double Less Bayam jaar na fa. waaw Ambroise jaar na fa. Amadou Kati Diop jaar na fa Cheikh Mbaba jaar na fa tous ces grands champions indépendants internationaux jaar nañ ah. fii INSEP. ñu def jaar nañ fa en 1988 boobu léegi nag ay fan la. Mhm. bu gisee Balla Gaye dem fa demati fa. Mhm. muy deuxième fois gisoon nañ aussi Gris demoon na fa benn benn benn yoon. Mhm. Balla Gaye miin na ko tàmm na ko moo ko Modou Lo état physique bi mu indi fii ci Sénégal. waaw fii moo ko may. yàgg na fi def fi ñaari komba kenn xamul kuy Balla ba mu demee gars yi defar ko nettoyé ko ginnaar ko mu taxawee gis ngeen mu bëree. Mhm. dafa ñam naa ko neex naa ko nag amul fenn nga koy bàyyi. waaw déedéet delloot na c' beaucoup d' argent nag. parce que INSEP rek li ngay fay par jour pour fanaan fa rek. Ah. waxuma la entraîné fa wala lekk fa c' beaucoup d' donc Balla ah ku ñu jox ju ñeenti combat xam nga ñeenti combat war ngaa investir na lu tax nga mérité ko nit ki boo téyee dara da nga koy mérité donc moo tax loolu la Balla Gaye xam et puis avec son encadrement qui bëgg mu évoluer bëgg mu avancer li yëpp day yokk làmb wàññiwul làmb waaye Bombardier nu mu def aj dakaay Bombardier Bombardier dinañ ci déglu semaine prochaine ah kon tey Balla Gaye kese la tey Balla Gaye la bu beneen yoone ñu wone Bombardier moom it ci waajtaayam te Bombardier de xam naa Bombardier dana physique bi yaakaar ne dina changé ak yooyu. <laughs> xanaa mu yokkaat ko rek. Hmm? Bombardier moom du changé de. <laughs> non Bombardier euh, mënul changé comme bala Gaye ni muy changé mais mën na changé quand même. Ah, ah. parce que Bombardier euh, li ci kaw. Ah. mën na koy liggéey toujours. mais li ci suuf foofu lay. foofu lay foofu lay amee problème amee problème. parce que buste bi nekkul en proportion ak tànk yi. Mhm. ci kaw ëpp ci suuf ci kaw moo ëpp suuf. mais seetlu nga si kaw si suuf baax na de. non non non bis bi nekkul en proportion ak tànk ak tànk yi am na jamono yoo xam ne bi muy bëreeg Moussa Gueye. Mhm. boobu temps eh, bis bi eh, tànk yi da ko attanoon. da ko mhm. mais nag eh, looy gën di dem. gën di dem ci kaw di gën a développé voilà loolu la quoi. Ah, dafa am ñoo xam ne seen bind noonu la mel. tey jii tafa li li Balla Gaye mën a am nii. Mhm. ci maasam. waaw ah. Bombardier mënu ko am. mënu ko am malgré mën na am doole nag. waay mais doole comme kii ni mu mën a defaroo waatee. Euh, du benn. du benn mais je damay leen di wax ni yéen a gis ni. Euh, Balla Balla Gaye mais booy ñaata bi mu ngi ci ruq moom tamit di <laughs> entraîné. non booy dina ci ruq ban ruq la nekk moom. Ah. ruq Sénégal ruq Allemagne ruq France Japon. ruku France ruku France ne kon fa Balla Gaye dem la dem fekk ko fa waaw mais bokkuñu fi bokkuñu fañ ne waaw bokkuñu fi ne ku ne yaa ngi sa ruq daal xanaa day xaar Balla génn ñibbisi moom mu mu dem dugg ba benn yoon ah non moom léegi mu bëri moom léegi mu bëri ko ba woy kon tafatin moom léegi mu bëri par une semaine après Balla moom day bëri ah très grand combat euh, euh, ah, am na combat bu xaar sa sa mbër bi dugg na ci gaal gu bëri wax euh, dugg na ci gaal gu bëri promoteur promoteur Thialis wax dinañ ñëw ci ci tafatin ak euh, ak Boy Niang. Euh, waaw loolu moo tax nag ñun ba léegi. waaw affaire bala Gaye ñun duñ ko wax. logique waaw ñun li actuellement li mooy. parce que am ngeen. mais dëgg la dëgg la am ngeen lu ñor. waaw loolu boobu mooy sumb bu njëkk bi. waaw neexul ah, ah xam naa ay na xam naa. waaw Tafatin neexul bu foog nga dugg foofu. Tafatin ah. neexul. Ah. waaye nag mbër boo gis ci àddina. pour mu xam mooy kan. les combats les plus difficiles ñu neexul ak moola la mën. da nga koy gagné ko boobu gën ak champion man dama Boy Niang su naree bokk parmi ces champions de ce pays. mu paase obstacle Tapha Tine. bien